donc di wax ne ndaje mi dafa doon ndaje mu ñor euh, son excellence le chef de l'état monsieur Macky Sall donc parce que chaque année dañ ko dañ koy organiser obligatoirement donc danaka dafa dem ba bokku ci agenda républicain du Sénégal ñu ko ñak organiser ak lu ti am dañ koy organiser donc lolu motax tay ji ma fi donc ministre bi am empêchement donc matéw fi pour ubbi ndaje mi nga xamanté mom mon fi euh pour wax né euh, président de la république fep fu muy tollu donc mu ngi demander au gouvernement donc mu lekkolo ak bép acteur bo xamanté ni mbir mi daf la concerner donc pour ñu am approvisionnement correct du marché national en mouton manam pour lepp lu ñuy xaar ci walu xaar pour tabaski donc si euh, daral yi ak fepp fuñ koy jaayé donc ñu man ko am donc ñu gis né euh, rela 2023 donc dañu am ay performance yu am solo par rapport à, 2022 donc aussi ñuy ñaan également pour 2024 performance yi nga xamanté amon nañ ko 2023 ñu am performance yu ko yo xamné mom moko ëpp doolé donc lolu li koy euh, un cumul de 854 200 326 sujets a été recensé au niveau des différents points de vente durant l'opération pour un besoin de 810 000. 810 Donc, bu ñu jëlee euh, daw, donc

comme quoi état du Sénégal effort yu bëri yi nga xamanté def nako ci walu élevage et donc fin mu la baisse est à 30 38 donc lolu day firndel bu baax a baax effort yi nga xamanté état du Sénégal def nako ci walu tabaski donc pour mu mu mu am donc lolu nak mënul won am tant que tant que opérateur euh, des les, les opérateurs donc euh, qui sont intéressés par les questions de l'élevage et particulièrement la la tabaski mais également les services techniques et les organisations professionnelles mënuñu buñu buñu impliqué wul won donc danaka performance yoonu yooyu yépp duñu ko am mais nak lolu bu ci jallé duñu yem fofu dé donc dañuy continuer effort yi ñu doon def diko renouveler diko doubler pour lépp luñu mënon mënoon daaw ren ñu man ko ñu ñu man lu ko ëpp dégen ñu man lo xamanté mom moom moom ëpp li nga xamanté mom mo am ren si loolu donc dañuy wax euh, di jiwo projet yi nga xamanté ni ñom ñoy intervenir ci donc nous accélérer les actions donc ici, si woo PRONAM PRAPS PDEPS PDFC PACAE et PND de même que le projet IMAM 2 mis en œuvre en collaboration avec avec euh, l'AMS et l'ONG FE donc di wone également rôle bi nga collectivité territoriale collectivités ñom euh, jouer mais également certaines ONG yi nga xamante ne intervenir si wa wàll donc bu lolu xanaa di ñaaxaat acteurs yëpp ñu gën a redoubler effort donc di ñaaxaat également les autorités administratives Nous gën également assurer une plus grande coordination et donc pour mieux mettre en œuvre toutes les politiques donc du ministère de l'élevage en vue d'assurer chaque année une bonne fête à tous les musulmans du Sénégal. donc xam naa loolu laa amoon que ci comme euh, wolof bi wolof la ñu mais wolof bi dese na deme noonu donc dañ koy yemale foofu donc di wax ne travaux yi nag li nga xamante moom moo ci des du ñàkk euh, bëri na ci yoo xamante ministère bi donc